alors mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax gërëm leen ci ànd bi ngeen ànd ak uh, télé bu mag bi di Public SN TV ni ñu koy waxee saa su ne leen di abonné di partager li neex lépp ak suñu kanam mbokk yi tey ñi nga fi nga xamante ni moom mooy uh, marché Pikine wala sax garage Beaux Maraîchers tey nag uh, dañuy waxtaanee li nga xamante moom mooy wàllu transport xam ngeen ni du yàgg dara incha allah euh, tabaski bi ñu dàkk feete am na ñoo xam ne dañuy jógee Dakar dem ci yenn régions yi ay Thiès Louga ak feneen boo xamante ni nit dina fa dem euh, daal di feete li nga xam moom mooy tabaski tey nag ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy euh, marché wala garage beau marché ngir waxtaan ak ñi nga xamante ñoom ñoo responsable wala sax ak ñi nga xamante ñoom ñoo chauffeur bi lan moo waral yokkute pass boobee loolu nag dama leen bàyyi rek ngeen découvrir ko seen bopp ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Momar le caméraman le djinn des caméramans acca nañ dem ci biir daal di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy responsable let's go. maa ngi lay fay bu baax. man maa ngi tudd Doudou Sarr. man maay adjoint chef de service su exploitation gare boo Baux waaw waaw ñu fii la nekk. ñu ngi ñu ngi fii à presque en face marché poison euh, fii lañuy ñuy yëngatoo daal. waaw gis euh, changement na ci garage bi euh, gis na ni xam naa nag xam naa dugg ak oto ak wala moto mais gis na sànq ba ñuy dugg ak suñu moto dañ ñoo wax ni pour ñu daal di fay 500 euh, loolu naka ngeen ko defee ba organiser loolu. waaw xam nga fii c'est une gare boo xam parking bi c'est privé c'est privé il y a un gérant ici boo xam ni moom gérer gare bi gare bi ak ak véhicules yi fi nekk nii gis ngeen ni mu sete donc absolument véhicule bu fi dugg te nekkul véhicule de transport interurbain da nga war a fay à l'entrée moto yi comme ni nga ne cinq francs lañ leen fayloo oto yi fi dugg si tamit am na soo ñoo dañuy fay 500 cent pour accéder si premier parking bi am ñoo xam ne mille francs la fay pour accéder si deuxième deuxième parking bi véhicule interurbain yi nga xam ne ñooy dugg si fii nag di fi jël seen rang di fay redevance ñooñu duñu fay à l'entrée dañuy am ticket de file

waaw parce que si fii gare routière bi mën nañu wax ni c'est une gare internationale parce que am na interurbain bi fii am na international bi fële loolu moo fi nekk jërëjëf. ñu ngi gis ni euh, du yàgg dara ay fan yi néew dinañ euh, dem ci li nga xam ne moom mooy fête de tabaski bëri na ñoo xam ne Dakar la ñu jógee dem ci yeneen yeneen région euh, dégg nañu ne passé ñu commencé yokk est-ce que mën nga ñëw ci leeral ci yooyu. waaw leeral bi du sori parce que xam nga eh, tabaski bi ñëw na ba pare déjà mouvement est commencé na Il am qui ont mais pratiquement ñun ne nous dara parce que euh, tarification c'est c'est c'est l'état qui bi moo donc à plusieurs reprises et à chaque année mais on n'a pas de euh, solution parce que l'État a waxu si

bu ñu si on intervient bu ñu intervenir clients yi seen bopp ñoom ñooy ñi nga xam ñoom ñoo ñoo koy favoriser sax parce que ñoom ñooy bëgg dem ba nga xam ne ñun bu nu intervenir nii oto bi duñ ko viser da ngay gis client bu jóg fay ñëw nii seen yoon nekku si suñu xaalis ak moom dañuy demal suñu bopp seen yoon nekku si bu boobaa ñun mënuñu si dara dañ leen di bàyyi seetaan leen kay fay li ñuy demandé ñu dem seen yoon. loolu sànni sa kàddu nga ne mbiru mbiru état la état ban la ci mën a la ci mën a appuyer ngir loolee am solution. non yokk paas bi yokk paas bi bu état bi xëyoon tey ni ku fi yokk paas dinaa la yóbbu fa loo xam ne neexu la loolu day dakk day dañ. mën nañ jàpp ni état bi moo seetaan ko. ah oh, en tout cas daal état bi daal bu xëyoon tey ni ku fi yokk paas ba ñu jàpp la sa oto dinañ ko saisir te dinañ la sanctionner parce que teguñu ko fen dinañ ko bàyyi léegi dinañ ko bàyyi moom c'est certain parce que état kenn mënul xeex ak moom c'est pas possible pas possible. en tant que adjoint état lan ngay xaar surtout nguur bi bees bi nga xamante ni euh, ñëw nañu euh, ban position ngay xaar ngir ñu jàppale wàllu ñi yore wàllu euh, transport. waaye loolu transport bi état bi lim si war a def rek mooy changer parc parc parc bi oto yi màggat nañu te am na oto foo xam ne bu fa tolloo amatul benn sécurité benn sécurité amatu ko oto boo xam ne def nga daw nga vingt ans vingt cinq ans jëm trente ans sécurité amatu fa léeg-léeg nga tase fii ak oto yoo xam ne oto yu baax la wax dëgg mais nga tase ak oto yoo xam ni daf lay wóor ni kii bu fekkee ni par exemple teg na ni yoon dëgg dëgg dëgg oto bu warul daw mais day génn romb alkaati yi romb policiers yi parce que dafay am visite technique ñooñu mënuñu si dara ñooñu mënuñu si dara oto bu am visite technique am carte grise am am pièces yi si war gendarme bi ak alkaati bi mënu si dara mais état bi ñoom ñoo war a am wut benn corps de contrôle boo xam ne am na oto yoo xam ne buñ ko gisee waratul daw. ba pare nanu changé parc bi sept places yi waratul daw benn sept places waratul daw état bi ma war a góorgóorlu si loolu yàlla na si yàlla jàppale. jërëjëf ñoo ko bokk merci beaucoup. bi maa ah, maa lay fay bu baax. ma bàyyi la nga wax ma noo tudd ak lan nga doon ceeb ci garage bi. maa ngi tudd Aliou Thiaw nekk chef de brigade horaire ah. euh, waaw. li ci des bëreetul te Pas yi yokku nañ ko naka nga gisee loole. waaw xam nga moom loolu moom du lu bees Sénégal Sénégal moom moo bindoon noonu ñeenti ñii moom ñetti wala ñetti bokk saa bu événement jotee da nga koy gis commerçant bi transporteur bi soo dara amee rek da ngay gis ñoom danañ yokk ci événement yu mel nii mais ñun boo gisee sëfoor di ko def lenn la sax ndax foo dem fi ne nii ale ngay yóbbu foo jógee fi dem ba Tamba nga passe normal 7000 bu fekkee bus bi la soo ci bëggee defee te ñaari gasoil daanaka day yem toog moo tax il faut que ñu am lu ñu teg ci paas yi pour mën a di dem ak ñëw ndax fii nii kenn du jógee Tamba di ñëw Dakar moo tax ñu yokk paas yi. alors que loolu tamit ñu euh, ngir am koppar googe euh, ndax am ñoo xamante ni dañuy exagérer foo xamante ni euh, dañuy dem ba 10 000 francs yooyu ci paas loolu xaw naa doy waaw xam nga fekkee gaar bu toll nii mënoo ko contrôler dangay gis ñoo xam ne nii ñu ñu ñu ñu compréhensif la xam ne mën nañ ci yokk bu dee 2000 francs wala bu dee bu 3000 3000 yooyu dinañ ci mën a sol gaal mais yenn saa yi gis ko ñu ñu ci ëppal ñoo xam ne dañ si profité foo dem nag ci ci àdduna bi branche boo mën di dem am na loolu am na ñoo xam ne nii sabotage dañuy def lu leen neex am na ñoo xam ne dañ ko teg ci yoon am na borom horaire yi nekk fii yoo xam ne nii mën naa la si di ma ñoo xam ne seen passe du exemple ku mel ne Pape Seck horaire guddi yi huit mille lay def te auto climatisé lay def mais nag moom dafa réserver ay client pour li xam ne day jeex am na ñoo xam ne nag amuñu client moom événement bu jëlee dañ ciy profité waaw am na ñoo xam ne it noonu lañ mel daal dëkk bi noonu la noonu la bindoo. est-ce que tey euh, ni état bi daa seetaan ci loole waaw yàgg la de. Ah, est-ce que tamit dañoo woote wàllu rupture. ba léegi ñu ngi continuer di loolu màggal ñu yokk paas gàmmu ñu yokk paas tabaski euh, korite ñu yokk paas. loolu tamit doy na waaye war na mën a jógee fii si Sénégal. nga recteur boo xam ne nii ci nga jàng école màgg ci fekk ko fi soo tëbee ne donc bi jógee eh, du yomb de ay wax nii la rek recteur recteur Sénégal xam nga lan laa gëm recteur Sénégal yàlla rey ñëpp ñu ñu judduwaat. Eh, oh, loolu moo ëpp ne ah, boo ko deful recteur ba am noo koy recteur changement ah man de dina ma bett yàlla na am nag waaye xam ne. fi jamono ji tollu ni senegal ni mel ni nga ne da rupture mm. ah ma diggee la de man na mo bu na xam ku nek bu fekkee président nga ci yaakaar 17 millions d'habitants ku nek bu bëgg lay eh, defal rupture ah xam nga ne lolou ko gëm da ngaa bëgg nga koo bëgg a gëm rek mm. dalaa la nga gëm ko rek wala nga ànd ak ñoom nga gëm leen mm. waaye xam nga ne lolou ku ko ku la ko wax yow sa bop mom mi koy wax sa xam ne ne lu jafé la waaw xam ah. nañ oto bo xam ne yow momoko yilifoo chauffeur bi terrain lan la jox boo bañee client bi imposé la ne di ci yéeg munoo wax ne du yokk paas yow léegi oto bu demee ba Tamba day dawal xot oto ñëw nan lay def il faut mu sol gaz il faut mu yokk paas yi mën a sol gaz wala aller retour su bu demee gaare kan moo yóbbu ci si des oto yi ñu Sénégal parce que automobile bi màggat na ba fi nekkoon moo fi nekk ba léegi nañ jéem a changé loolu bu oto jaw demukaay matee xam ne mu paas ku nekk bu demee benn voyage bu ñëwee dootoo mën a boo demee gaare wala boo demee am yëpp lu luy ñëw deme yokk paas bu du demee noonu fi boo demee màkk sax yokk nañ paas boo demee aj umra yokk nañ paas boo demee rom bu de fépp la boo demee màkk lu fa xew dañuy yokk paas dama laaj ñuy umra moom partout la loolu lañ ci oto yi yenn yi si ay sept places yooyu ànd nga ci waaw ah, waaw waaw ku indi lu bees loo xam ne da gis oto boo nit lang na ci raxas dawal si wala sa papa yoroon ko di si jàngi nga koy ngay màgg di xool sa papa yor oto boobu ba nga commencé liggéey oto boobu ku la ne dañ koy sandel nag nga kontaan ah. lan mooy lan mooy taxawaayu état ngir daal di mën a jàppale askan bi nga xamante ni ñu ngi jugee fu jóge Dakar dem di julli ji fu sori. waaw jàppale ah gunge transporteur sa chauffeur rek teg leen ci bonne condition waxtaan ñoo sensibiliser leen jéem leen tàggat rek ñu dem ci jàmm ñëw si jàmm ñu lay jaajëfal. baax na waa jërëjëf. waaw maa ngi tur bi nan la. maa ngi tudd Aliou Thiaw. waaw. ok sëñ bi maa ngi lay siyaare. maa ngi la siyaar. Mansour la. yaa ngi ci euh, garage Baux Maraîchers euh, gis nañu fi nga xamante ni moom mooy tabaski li ci des bëreetul te client yaa ngi jooy ne da ngeen yokk paas bi nu mu demee noonu. loolu moom amagul bisu tey bi ma lay amul benn tableau boo xamante ni yokk nañ fi paas amagu fi déedéet. chauffeur yi fi ne nii liggéey bi lan tal teg ko si raay bi teg ko si yoon normal ci la nekk man ngaa jóge fa nag dem dem ci arrêt suba wala ginnaaw suba non fii ak suba wala ginnaaw bu client yi bare ba nga xam ne boo demee fa ngay egg da nga yor wat pour ñibbi wat Dakar pour mëna jël ci wat yi di nga xool raisonnable nga yokal ko client waaw. waaw comme. tay ji so fekk da nga don dem Thiès eh, ñaar nga dem Thiès. te pass bi 2000 la. waaw jamono ji ni fekke suba. gude suba la. ça ne pas bu client bare bëree bu fekkee bu la boo demee Thiès doo yabaat da ngay dawal pour jël ci client man nga ci rek 1000 francs muy 3000. waaw bokk la bokk la bagage non bagage mom ça ne pas da nga waxale rek waxtan bi juba bagage bu jaadu wara fay xam nañu ko da fay xam nañu ko ndax sa sac bi nga gaddu kenn du la ko fayiku mais bu dee bagage yoo xam da yeb ci porte bagage bi ñaa da ngaa débordé ak yooyu nga koy war a dagga ruusi di nga ko fayiku waaw loolu rek la. yéen yéen chauffeur yi nekkee boo marché yéen problème ngeen di jànkonte. non boo marché moom bii moom wax dëgg yàlla macha allah ci côté comprendre nga na bruit bi am na bruit amul bruit ndax chauffeur moom fu mu dajee bruit du fa mën a ñàkk non coow nii rek xam nga kilaa bi nii am na kilaa yoo xam ne comprendre xamul nu jàpp na ni moom bu départ seen kër dana jàpp moom chauffeur daa bon wala lenn programme boobu leen indaale ci garage bi léegi programme boobu nag boo ko indaale ci garage bi loola waaye def nga ni chauffeur nangam te fekk demul noonu chauffeur yi nga ci kër lañ bàyyi koo client yi ci kër ku ci ne ma am nga mag joo xam day wajaase wala rak man mi damay wajaase léeg-léeg te chauffeur la lu mu doon nañ ko teg ci yoon quoi mais client bi meree këram préparé chauffeur kooku kenn mënu koo tee coow mais ñun nag ñoo ngi préparé loolu pour client bi ñu koy dalal normal bañ a coow ak moom ñun ñoo ngi alors gis nañ fi jamono jee amoon nañ fi benn nguur goo xam ne jóge na fi amaan na benn nguur goo xamante moom moo fi nekk euh, changement war naa mën a am si loolu si si transport waaw dëgg la sama baay mag yi fi nekkaan man wax dëgg yàlla ma waxee sax safari damay kaa ndax sama candidat la woon sama lépp la woon nag ba tey a bëgg jële na ko fi mu indil na jumaa yi liñ ciy ñaan suñu borom daal am ci mbégte yëg suñu borom baax ñëw na nag mais suñu changement normal moom suñu waxee suñu dëgg gisagun ko ah, non gisagun loolu ndax ñun Dakar Casamance la ni daw te bo déparé fi ba kar nga egg mas sa bagage débordé na heure sangam do ko daw xam nga nga wara daw nga da wara daw guddigi gi nga ñew ba minu ñu baré la buñ la baré 5h du matin ñu war laa départ lo digënté bobu do fa ñalaw nelaw yi dara ndax kilaayi mën noo ne ci oto bi toog ngay nelaw ci oto bi mënu ta nekk war bersa mat la ne la tamit di teud di baye kilaa ak seen bagage wërul xam nga lo ko cinq du matin ñu baye la nga wara départ jëm Casamance bu dee bu jurub bu lan la baré wala fatik nga wara départ Casamance bula jant bi tàmbee sa ko ngay sëfër nelaw guddi gi da ngay sa xel dana ci nelaw mais bula baye bàyyee bi nga nelaw nga nelaw nga bëccëg ba doyal engagé départ guddi sëfër bobu du nelaw sëfër yi ku ci ne am nga lo bëgg xam nga yor sa matériel nga bëgg nga yor sa njabot ngay genn fi mu gëmmeetu mu lér nga dañ ci war nga war ci dawal normal nga dawalé nenaan sëfër def loolu déedéet sëfër ben bëgg da sogee waaw alors kon donc problème moom mooy ñi nekk ci euh, ci mbedd mi ñoom ñooy indi problème yokk paas bi waaw ñi nekk ci mbedd nga buntu bi gin tey boo fa deman tey Thiès bi ay 2000 la fii mais boko demé ni 4000 millions ñom 4000 millions yabé waaw ñom ñom ñu leen neex lañ ko yoké léegi dañ ñoom set place mu ñu bu ñu waxee ñu ne Pikine 4000 la fay 5000 la fay te est-ce que woo garage ci buntu ba nga yégué bu sa bagage réré nga ne ci auto ba ma duggan fi la ko bayyi set place fekk du set place set place yi boo ci bayyi bagage bo jëlé numéro auto ba garage bo mën dem nga ni numéro sangam la duggan den la xamal ni la auto boobu diwoo ko moom moo tax client yi amna lu ni bañ lo xam seen intérêt la ndax intérêt moy nga duggé garage nga ci bagage nga wax numéro auto ba ñu la auto bobu auto diw la mu xol la sa bagage jox la ko mhm. chauffeur néew ma sacc amul de mais chauffeur bi sacc ako jafé gis mhm. wallahi mën nañ wax na solution bi mom moy garage wa Bo marché wa garage mom Bo marché wax deug yalla ma sha allah ñu fi ne amuñu ñoom benn problème ñi nga xam ñu fi jiite amuñu ben problème mhm. liñ bëgg da client yi nag ñoo ngi ñëwoon même taxul ñu ñëwee ben ñëw bi ndax client mom mo bëgg koy sacc ndax ñom liñ bëgg ku leen sacc man nañ dem buntu bi ñu sacc leen yobul leen ci wala dara au lieu que ñëw fi wara duggé normal duñ ko def wa ki nga xam nak mom la ñu booleel mu ne suñu ministre Tafa nan la ko waxee sax El Malick Ndiaye la xaw ma ñun gisaguñ ko de non non gisaguñ mbiram ndax lim nu gën a wan a wàññil mooy yoon wii liñ ci jànkonteel départel jëm Casamance fukki njàpp ak juróom fu ne nga négocier fa yaa xool na def ba egg am na loo xam chauffeur du ko ne mais li daj ñoo xam ci suuf de nan jëmal ci loolu jàpp leen ci waaw El Malick Ndiaye ñun ba ñu nu ko ndaxte mën naa ne suñu morom la ci côté kon na ñu ñu jàppalante ñun ñëpp ñëw boo marché wax ak gaañ ñu war a waxal nag waxuma nga ñëw koo xam ne amul sax carte amul permis nga ñëw di ko laaj ma lay wax de da ngay ñëw ñi nga xam ne dañoo yor transport dawal vingt ans vingt cinq ans nga ñëw nga wax ok